Monsieur le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, Monsieur le directeur général de la Sénélec, Monsieur le président du conseil d'administration de la Sénélec, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur, Madame la présidente du conseil départemental de Tuaon, Monsieur le maire de Taïbengaï, honorables députés, mesdames et messieurs, les ambassadeurs et représentants des partenaires, je voudrais citer le groupe de la Banque mondiale, bien sûr la SFI en son sein, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Tuaon. sur le sous-préfet de Mewan. Monsieur le représentant, président directeur général de Tobin Power, honorable notabilité politique, coutumière et religieuse, chère population de Taïbendiaï et du département de Tivaouane, les cérémonies marquant la mise en service d'infrastructures structurantes constituent toujours pour moi des moments de satisfaction et surtout des moments de fierté, car elles matérialisent ma vision prospective et représente des étapes importantes sur le chemin de l'amélioration des conditions de vie de nos chères populations. C'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui de revenir ici à Taïba Ndiaye, monsieur le maire, chère population de Taïba Ndiaye. Je reviens après le lancement du programme national des bourses de sécurité familiale le 4 octobre 2013. Je reviens donc pour procéder à l'inauguration de la centrale électrique de Taïba Ndiaye. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités locales et les populations pour la parfaite organisation de cet événement et surtout leur dire un grand merci pour l'accueil chaleureux et coloré qu'ils m'ont réservé. Je vais essayer de mettre de côté mon discours pour dire un peu ce que j'ai dans le cœur à la suite de cette belle inauguration et de cette belle infrastructure. Comme vous le savez, le plan Sénégal émergent est un plan ambitieux pour le développement économique et social du Sénégal. Un pays ne peut avoir l'ambition d'une émergence sans régler l'équation énergétique. Et régler l'équation énergétique au Sénégal, c'est avoir un schéma de production en mix qui combine des sources différentes, mais à bon marché. Et dans ce cadre, il faut saluer la politique volontariste de notre État de privilégier, en tout cas pour ce qui concerne la politique de production, le secteur privé, c'est-à-dire le développement des partenariats publics-privés. Il faut s'en réjouir et l'exécution dans des délais records de la centrale de Taïba Ndiaye montre que nous sommes sur la bonne voie. Je voudrais donc féliciter tous les acteurs qui ont permis cette performance, au rang desquels d'abord les élus, M. Alelo qui a compris lorsque je lui ai dit qu'il fallait hâter la délibération pour mettre le foncier à la disposition de Sénélec, puisque cette centrale vous apportera le bonheur elle vous apportera l'emploi et les ressources pour la collectivité. Mais il faut féliciter les promoteurs, Tobin Power, qui croit au Sénégal. Féliciter la Banque mondiale, qui est véritablement un de nos partenaires les plus acharnés sur la question de la résolution de l'énergie. Mais la SFI également, qui depuis très longtemps accompagne la Sénélec et le Sénégal dans des schémas de production indépendante d'énergie. À tous, bien entendu, et aux opérateurs qui ont réalisé dans les délais, je voudrais adresser mes plus vives félicitations. Je voudrais également dire, euh, en ce moment précis, que nous allons valider dès la fin de ce mois le nouveau plan de production qui a été énuméré par le directeur de la production. J'ai indiqué au ministre de l'Énergie et au directeur général de la Sénélec mon choix sur le renoncement par rapport aux sources telles que le charbon. Évidemment, les projets en cours seront poursuivis, notamment le projet de Sendou. Mais aujourd'hui, l'option forte a été dite par la représentante de AFC, c'est de profiter des opportunités que nous offrent les financements alternatifs sur le solaire et les énergies renouvelables. Bien entendu, nous poursuivrons nos efforts en matière d'hydroélectricité grâce à la coopération au niveau de l'OMVS et de l'OMVG. Mais j'ai hâte de voir la Sénélec finaliser avec AFC ce contrat sur Scaling Energy, je crois, qui devra permettre de mettre à disposition 200 MW très prochainement de solaire dans des conditions extrêmement avantageuses pour Sénélec et donc pour les consommateurs. Ce travail sera fait et nous mettons les efforts supplémentaires sur le réseau, les efforts sur la lutte contre les fraudes et les pertes techniques pour les ramener de 15 à moins de 10%. Ça, est l'ambition et je sais que, monsieur le directeur général, avec l'ensemble du personnel de la Sénélec, vous vous attellerez à réaliser cette ambition dans les délais attendus. Je voudrais rassurer nos partenaires, Matelègue en particulier, qu'il faut engager sans attendre la deuxième phase qui consistera à rajouter 35 MW grâce au cycle combiné. Il ne me reste plus qu'à donner rendez-vous à la Sénélec, aux partenaires, aux bailleurs, leur donner rendez-vous sur les prochaines inaugurations qui devront faire en sorte que des difficultés vécues déjà jusqu'en 2011, nous puissions arriver à une situation où la coupure d'électricité sera une exception dans notre pays. Et nous sommes sur la bonne voie. Il faut donc persévérer dans le chemin. mbokk li mu ngeen ne dañu nekk ci campagne pour le référendum looloo waral guddee bi te maa ngi continuer nooto guy jamaa léegi bala ma dellu Tiwaawoon ci guddi gi kon ndaje mi tawféex la indi centrale bu toll nii nga xam ne daanaka ndakaaru la doon nekk ak Cap des Biches ñu indi ko fii ci Taïba Ndiaye mu nekkaan nag mbégte lool ci man ndax ñëwoon naa fi ci 2013 ba ñuy lancé programme de bourse familiale yaakaar naa ne Aly nag ñu ngi lay bëgg jox buña foog nga may ñeneen ñi tuuti nag ñoom it ñu mos ah kon nag bu boobaa ngeen fay ma alors donc lii ngeen gis mooy développement lii mooy émergence andi liggéey et là je voudrais demander au promoteurs de contribuer à la formation des populations locales et des jeunes. Parce que si vous les formez, ils seront de bons techniciens et ils habitent la localité. Vous y gagnerez, ils y gagneront et le pays y gagnera. Donc il faudrait privilégier la formation des jeunes sur place, in situ, pour en faire des ouvriers qualifiés, des techniciens, voire des ingénieurs. andil lañ leen centrale bi commune bi dana si am koppar ndax danañ ko fay ay patente muy lu am solo pour seen gox daañu fexe ba liggéey bi ñu fiy liggéey mu am ñu ñu jógee Taïba Ndiaye ak li ko wër ak département bi waaye aussi yaakaar naa ni Tivaouane département bi dana nekk département boo xam ne koom-koomu réew mi lu bare dana fi aju kon nag maa ngi leen di xamal ni daal. liggéey boobu dañ koy doog a tàmbali dong te kanam la jëm kon li ñu dëgmal ndax mënu ma si ñàkk wax muy référendum le 20 mars dañ koy def ngir réew mi dañ koy def ngir dëgëral kuréelu Sénégal du référendum président Macky Sall du référendum parti politique référendum askanu Sénégal dama bëgg ñu dëgëral les institutions de la République renforcer la démocratie et l'état de droit. Autrement, je n'aurais pas pris toute cette peine. J'aurais pu dire aux députés, votez-nous cette loi, puis ça durerait une semaine, c'est terminé. Mais vu l'ambition et vu la profondeur des mesures, en particulier les clauses de non-révision, sur des domaines aussi essentiels que le mode d'élection du président de la République, le nombre de mandats et la durée des mandats, mérite que le peuple donne son onction pour que nul n'en ignore et nul ne soit tenté à l'avenir de manipuler la Constitution pour un troisième mandat, un quatrième ou je ne sais quel nombre de mandats. Voilà pourquoi le peuple sénégalais doit faire sienne cette réforme et s'engager. Il ne s'agit pas de majorité ou d'opposition. Il s'agit des citoyens qui doivent faire l'appropriation d'une réforme qui fera de notre constitution l'une des plus évoluées dans le monde. Je ne parle pas seulement de l'Afrique, mais dans le monde, puisque nous aurons un standard démocratique qui n'a rien à envier aux nations les plus modernes. Voilà le sens et la portée du vote du dimanche 20 mars. Et je vous engage, je vous invite, hommes, femmes, jeunes, vieux, à vous mobiliser et à voter massivement pour un oui oui pour un Sénégal émergent, oui pour l'emploi massif des jeunes, oui pour la promotion des femmes, de la femme sénégalaise, oui pour un Sénégal nouveau, prospère et inclusif. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, pour vous accueillir, Monsieur le Président, nous, autorités traditionnelles, jeunes, jigéen ñi ak xale yi, Monsieur le Président kontaan nañu encore. lu matul ñaari at ñëw nga fi lancé les bourses de sécurité à Taïba Ndiaye tey sa calendrier chargé lool yaa nga jóge Touba ba ñëw inauguré Tobène Po bi nga xam ne dañu ñëw dëkk ak ñun Senelec ñu yàgg dëkk ak ñoom ñu yaatal leen ñu am luñ ñu dig ñu am ci yaakaar bu baax yaakaar naa ni Tobène Po tàmbali nañ stade bi te nee na du ñu yem foofu waaye dañu bëgg ci wàllum xëy ñu dimbali xale yi le l'honorable Gora Samb aurait dû prendre la parole pour bu vous l'exprimer mais je vous peux être rassuré yaakaar naa ni incha allah dig yi nga xam ni seen léeg digg dig nañ ko ba bind ko jox ñu ministre bi dëggal ko incha allah loolu duutu yàgg pour mu am kon loolu na ci seen xel dal ah liñ doon tomb nag bu yàgg a yàgg mel na ni mi bëgg a ñor ndax suñu commune li ñu bëgg mooy patente bi ñuy xaar fii ak société yu bëri yi nga xam ni maa ngi koy xalaat soo liggéey loolu bu ñu ci jotee ñun dañuy créer emploi te monsieur le président sa engagement sa yéene tey ci sa mandat bi mooy xale yi fexe ba xale yi am xëy ñun itam loolu moo nu daal fii ci tay Taïba Ndiaye waxatuñu ndox daanaka waxatuñu courant waxatu waxatuñu yoon waaye xëyu xale yi mooy suñu problème xëy yi nag dañu bëgg xale yi jàng def formation professionnel nekk ay ingénieur am ay brevet technique pour que ëllëg société yi ma tudd yëpp ñu war a taxaw ñu war ci mën a liggéey monsieur le président fii moom na ci sa xel dal ñépp nañ waaw wuy ji wuy ji nañ waaw ñëpp ñu waaw nun kay taux de participation la ñu wax du ma jeexal nag monsieur le président pour wax la ni la nga santan sa njaboot en tête Bassirou Gueye def na ko Bassirou Gueye su le travail de mon ami et frère euh, Assane Ndiaye li leen président waxoon ni nañu ñëw ànd joxante loxo def nañ ko te incha allah daañu gis résultat bi kon président may itam maa ngi lay denk bassiru Gueye ana Bass dama bëgg nga dem ni ñu président xam ni am na loxoy gor rek ko mën nun daan la jàppale tey daal ñaan président incha allah mu jàppaleel kontaan nañu fa tabaarakallah dama guddi ne kontaan lu gën a développé waaye xale yi li ngeen wax yëpp daan ko bind ci kayit ci wàllu santé ci wàllu wérgu yaram ci wàllu jàng bi ci wàllu xëy mi loolu góor a bëgg na ko wax waaye ne woon naa ko dinaa ko ko waxal te du ma yem ci wax ko ndax mii di président xam naa ne luñ ko ci ñaan mu man ko dina ko def kon na ci seen xel bu baax. nu sant nag comité d' organisation bi. Malick Ndiaye di suñu deuxième vice président wax naa leen le premier vice président Assane Ndiaye taxawaayam liggéeyam guddi ak bëccëg ak comité bi mu àndal yëpp depuis une semaine nelawuñu seen sant aussi Saïd de Tobène Power guddi ak bëccëg léeg-léeg sax nu jàppante parfois nous avons quelques petites difficultés mais c' est un homme engagé et un l'heure exacte je vous remercie monsieur le président kontaan nañu vraiment xam nañ ni guddi na mais wax dëgg yàlla kontaan mënul passé kontaan bu ñu sañoon dañuy wax ba suba allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim avec la mise en service de la centrale électrique de Tobin Power et en témoignage d'un travail considérable mis en œuvre pour cette réalisation. Je me permets de rappeler que ce projet avait été annulé en 2008 Puis ressuscitée en 2011, cette centrale n'aurait pas vu le jour sans l'application personnelle de personnes qui ont cru en ce projet, a commencer par le président Macky Sall, les ministres de l'énergie passés et présents, les cadres de la Sénélec et bien sûr les collectivités locales et en particulier le maire de Tambandai, M. Alilo. Le soutien des organismes financiers, de la Banque mondiale, de la Société financière internationale IFC, FMO, Emerging Africa, BOAD et l'aide assidue de Madame Véro Sanjoué et de Monsieur Alain Ebobissé de l'IFC et de Monsieur Jamal Sagir de la Banque mondiale, ici présent parmi nous, ainsi que le travail considérable des ingénieurs de Matelec, de Man Diesel Turbo, de Saint-Nazaire et d'Augsbourg et de nos sous-traitants locaux, Zachem, LAS, Technimex, Bolloré et bien d'autres. Pour réaliser, réaliser ce projet, des moyens humains et financiers importants ont été mobilisés. Ainsi, le groupe Bolloré a transporté des équipements des quatre coins du monde et acheminé plus de 5000 tonnes de matériel. Plus de 14 000 mètres cubes de béton ont été coulés, 40 000 heures d'études et d'ingénierie, 100 000 heures de travaux sur site, soit l'équivalent de 400 personnes travaillant pendant une année, et donc 90% sont sénégalais. Et voilà devant nous cette superbe réalisation à la pointe de la technologie dont nous sommes si fiers. Elle va sensiblement contribuer à améliorer la fourniture de l'énergie électrique aux citoyens qui est en quelque sorte l'oxygène du développement économique et social, notre confiance dans la stabilité politique et économique du Sénégal a amené notre groupe à démarrer les travaux de la construction de la centrale en la finançant sur nos fonds propres, avant même le bouclage financier, ce qui a permis son achèvement 14 mois avant la date contractuelle. Pour finir, sachez que nous sommes engagés avec nos partenaires MAN, Diesel Turbo et la Sénélec pour constamment améliorer ensemble afin d'assurer une qualité de service irréprochable, rendant le partenariat secteur privé et public un success story. Une autre nouvelle, les travaux ne vont pas s'arrêter là, puisque nous devons commencer les travaux sans délai de l'extension qui portera sa capacité de 70 MW à 105 MW. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous et pour un prochain challenge.